bëkkëlee karamaan aram loo ku nga jaam faawa dufaar joom mi jaala bëkkëlee karamaan aram loo ku nga jaam faawa boo ko déglukat yi leen di nuyu ci fi ñu daan nuyoo rek di ajjuma ju tedd ji di bis bu mag ci groupe Futurs Médias télévision TFM waxtaanu njaay Lo njaay tey nag ñu def ko fa mag fekk fi ku mag ku fekke démb ku ñu yar ku yàgg ci kippaaru mag njëkk ña may siyaare baax naa ci ñëw ca kanam xalifa général kullu murit di sëñ sii di maxtaar mbakke yàlla na fi yàgg tànd ak wér te tal di siyaare nag bàyyi waa bu ñu bàyyi xel yëpp dem miri na bàyyi bàyyi ñas borom islaam borom diine ki juboo nañ ñëpp ñoo ngi ñaanal xalifaam bi yàlla na fi yàgg te wér tànn te tal ko di jaar nag Serigne Cheikh Tidiane si ak maam bu Kunta ci Njaasaan ak Serigne Cenaba di siyaare bu baax waa ko Serigne Mountakha Tall di siyaare nag tubaarkalla Serigne Ablaye Thiaw Laay waaye di ñaanal bu baax borom réew mi nag président Macky Sall ak première dame soxnaam di gërëm bu baax Youssou Ndour ñi koy liggéeyal yëpp ak techniciens yi yëpp ak directeurs yi yëpp du ma lim ndax moo nu may audience bi mel nii nu génn di chef si kilifa yi bu ñu waxee réew mi dégg ko bu ñu jafee réew mi bég te ñu fekk démb nag te nekk siraatal mustaqim nekkit nag ci li yàlla digaal ak li Seydina Muhammad bëgg waaye ak li seen waajur yëpp bëggoon ñu topp ko bu doon sàmm ma ni génn jur rëccul di siyaare baax na ngi tubaarkàlla njaga nduur ndax <laughs> mooy directeur télévision yëpp moom la ak rakkam yëpp ak magam yëpp tubaarkàlla di ñaali sama technicien yi may àndal yàlla na barke wàcc seen kaw te fa ñu nekk yàlla fa leen cat ma ñëw nag ci koo xam ne kii mën naa wax tey nit boo ne jag noo ngi Medina Baye muy Cheikh Omar Diop fii ñu wax Fajaa mu xàddamu Baye ñas doom Baye Niass di taalibe Baye ñas waaye nag dund ci lislaam dundit ci loolu ñuy wax siraatal mustaqim te fekk lu bari fekk loo xam ne lii mag njëkk ña lañ daan mbubboo mooy waxante lu baax jëflante teraanga booba xaste amul déedéet mosuñoo fi ci kóllëre ku ñu tane dimbali la loolu moo amoon ak jikko yu rafet yi amul démb def naa ne kon su ma ko seetsee yaakaar naa ne ku ni ma démb ah sam xel de mbiri ak feneen fi may lim fépp waaye Cheikh Omar Diop ko xam-xam ni dara ñoru ko dulul islam ak dëgg nag dëgg ndax dëgg rek ay mujj kon Cheikh Omar ñu ngi lay siyaare di la ñaanal jàmm di ñaanit li nga nekk yalla na ko yàlla saxal di gërëmit bu baax tubaarkàlla ñun fekk ñëpp kon Cheikh Omar kàddu gaangoog nga nuyu askan wi savante askan wi ndax boo dee waxee ñu dégg ko alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdaalin allahumma salli ala sayidina muhammadin fatihi lima ughliq wal xaatimi lima sabaqa nasir alhaq bilhaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة السيقي اهدل لنا بهذا المهدر وتأتي فيه بنصرة تحت لنا وسفر الحمد لله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نيغي سانت يالا جولي سي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم di nuyu suñu papa alaaji njaay loo njaay ak suñu mag ji nga xam ne mooy maam ak mboolem technicien yi ngi leen di nuyu di nuyu Sénégal yëpp waaye nuyoo yi ñu ngi ciy jiital alxalifatu am papa cheikh di xalifa Mawlana cheikh al islam alhaaji ibrahim ñas ñu ngi ciy teg imaamul akbar fi Medina Baye muy imaam Cheikh Ibnu Seydi Ali Cissé ku leen nuyu ñoom ñaar nuyu nga mboolem ñeboote Baye nuyu nga mboolem kilifa diine yi nuyu nga mboolem kilifa aada yi nuyu nga Sénégal nuyu nga àddina yëpp Alaaji Njaay Loo Njaay ñu ngi nuyu auditeur ñu ngi nuyu téléspectateur TFM yëpp te di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla yann yàlla wàccee ci réew mi jàmm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Omar nuyoo bi tubaarkalla li ñu doon yaakaar lépp gis nañ ko ci yow mam lu ma la bëgg a laaj rek ndax boo fekkee kilifa te mat ko sëkk te mankiw ko faaw nga yaatal ko gëstu ko ndax li amoon démb daa amatul tey li xewoon démb xewatul tey jikko yi kenn ku ne xamatoo foo jëm lu waay neex wax nit as gor da nga ko daan miimal su defee nga miimal ko bu jëful nga miimal ko da ko daan sol it mbub mi nga sol mooy tax bu ëllëgee ba la gisee ruus ko yooyu yëpp amatul te mag ñi loolu lañ daan wiyoo ngor la ñi daan dundi moo tax mosuñoo xiif Cheikh Omar Diop ma gis li xewoon démb ak li xew tey bokkul mag njëkk ña nañ daan mbubb mañ daan sol ak nañ daan bindoo amatul lu waay neex wax lu waay neex jëf ak it doomi soxna ban mbubb la war a sol kon Cheikh Alaaji Cheikh Omar Diop maa ngi lay laaj loolu lu tax réew mi mel nii te loon bu jëkk alhamdulilah ñu ngi sant yàlla sant mag ñi nga xam ne ñoo samp Sénégal di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ne li nga xam ne moo waral jamono bi tey mu ëlbatikoo nii bokk na ci yàkkamtik doomu aadama ndax yàlla bi mu bindee yonent yàlla moom bi mu bindee aadama alayhi salaam daf ci dugal roxo ci jëmmam ci xisa bu gàtt waaye bi roxo gi duggee ci aadama ba yegg ci óomi aadama yi aadama daf na bërët bëgg a jóg daal di daanu yàlla daal di wax ne xuliqal insaan min ajal bind na doomu aadama ci yàkkamti yàkkamti bokk na ci li tax jikko yi soppeeku dangay gis nit Mawlana Cheikh al Islam Alhaaji Ibrahima Niass radiyallahu anhu dafa wax ne mbir mu nekk nañ ko tàmbali sa tàmbali tàmbaliwaay ba xale yi jamono bi dañuy xëy gis nit yàlla dogal mu xëy sotti ñu xëy bëgg mel ni moom bëgg xëy rek sotti te duñ laaj kooku noonu ñu gis lan moo waral mu mel noonu mu mel te it buñ ko laajoon ba xam fi jaar ba mel ni mel bu boobaa buñ fa awee danañ mel nam mel te jikko ju ñaaw du am wax ju ñaaw du am waaye da gis xale day gis kenn mu mel nenn mu jóg bëgg a mel ni kooku waaye day tànn yoonu boppam ndax bu jëkkoon mag ñi boo judduwaan dañ lay yóbbu ca daara ja nga jàngi su fekkee ne dafa nga danga nga nekk nitik taax koo xam ne ci ville bi nga dëj nga nga masalan ci ville bi nga dëkk su école tëjee ñetti weer yi nga xam ne moom ngay toog doo ko jàng dañ lay yóbbu ca dëkk kaw ya bu ko defee nga namp sa jikkooy maam ya namp sa jikkooy waajur ya waaye léegi loolu xewatut léegi liñ xewal mooy su école tëjee wala ñu yóbbu xale yi ca dëkk dëkk ba ñu nampi jikkooy mag ñi jàng dangay gis ñu wàcc leen ña ngay dem ca géej ñi ña ngay dem fu leen neex xale yi duñ xam lan moo nekkoon seen cosaani baay lan moo nekkoon seen cosaani maam ndax ki nga xam ne mooy Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass radiyallahu anhu wax na ne moom baayam moo ko yar baayam moo ko njëkk a dalal baa ba ni muy génn ci loxol baayam musul dem ci kenn ut fa benn xam-xam wala mu ut fa benn darsu bu muy jàng nga gis ne mag ñi bu njëkk ba dañ daan téye seen njaboot am jot ci ñoom. yar leen waaye léegi da ngay gis koo xam ne dafay jur doomam du am benn itte ci doomam du am benn àq ci doomam xale yi nag léegi ñàkk kilifteef lañ tànn liberté lañ tànn waaye gone dañ ko daan yilif gone da daan am nijaay gone da daan am bàjjan bu dee jigéen da daan am bàjjan su dee góor mu am nijaay moom lay la la wax ndax xam ne mag dafa jara bàccim réew mag ñi dañoo fekkee woon démb daan wax li nga xam ne mooy jubbanti ndaw ñi mag ñi dañ daan am penc muñ daan daje danti dajale doomi dëkk bi yëpp wax leen li nga xam ne moom moo nekk cosaani dëkk bi nit ku nekk ñu xamal ko néeg bi nga bokk nit ku nekk ñu wax ko say mbañu néeg bu jëkkoon gàcce dafa amoon bu jëkkoon mbañam rus dafa amoon bu jëkkoon nawle dafa amoon bu jëkkoon ah xam-xam dañ ko doon sàkku xam-xam dañ ko doon jëggaani waaye àddina tey àgg ci foo xam ne doomu aadama féccërle na ba buggatuta seet li nga xam ne moo nekk ay repéram ndax bu jëkkoon boo buggaan a ut soxna mag ñi dañ lay woow na diw demal sa néeg diw nga wut fa soxna ndax kooku de ndeyam sëykat la kooku boo fa amee doom doom jooja mbañam rus lay nekk waaye jamono àgg na foo xam ne a ah, nit ñi nag seetatuñu liñ bëgg ak liñ bañ li leen neex rek lañuy ñuy def bu jëkkoon mag ñi buñ amaan dara lu xew dañ ciy xool lan la ci diine lislaam wax lan la ci lislaam bëgg lan la ci lislaam bañ li ci lislaam bëgg lépp dañ koy def ba mat li ci lislaam bañ lépp ñu bako waaye tey ji tey mag ñi ah banañ fi ay doom banañ fi ay sët ña ngay def la nga xam ne moom lañ mën kemta layal seen kattan waaye doomu aadama nag su bëggee baax mooy jubbanti boppam doomu aadama su bëggee baax dafay ut koo xam ne moom lay xool mu di ko roy ku bëgg mel ni moom léegoo léeg ma seet ko ci wéykat yi walla ma seet ko ci ah niti daara wala ma seet ko ci mbëram làmb yi waaye danga gis kenn koo xam ne dafay gis benn mbër wala mu gis benn sëriñ mu ne ni kii laa bëgg a mel aw ci yoon wi kooku meloon ba mu jig mu mel nii kooku meloon wala nga xam ne ku ko gis rek sa xel dem ca ka nga xam ne moom la bëgg a roy moo tax Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass moom mu wax ne fa waxti wa saaxati saraftu li zikri yi mu ne sama waxtu ak sama temps lépp maa ngi koy def ci tagg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kooku muy tagg yàlla moo ko tagg yàlla moo ko yar yàlla moo rafetal ab jikkoom ba yàlla wax ko ci alquran ne maa ko yar waaye tagg ko ci jikkoom way naka la ala xuluqil azimi yàlla tagg na yonent yàlla muhammad tagg na xolam tagg na bëtam tagg na ténqam tagg na jikkoom waaye jikko ci jamono tey moom lañ war a beesalaat moom lañ war a jëmbataat moom lañ war a feddalihaat waaye jamono bii de liñ ci gis ah daw na yaram tey na xel te ragal loo na nit koo xam ne ah maga yar wala nga fekkee ci jamonoy mag ñi ndax dañuy wolof dafay wax ne mag mu jàng mag mu tukki fukki dëkk ak gone gu jàng fukki téere suñ dajee mën nañoo waxtaan te buñ waxtaanee dañ déggoo kon Alaaji Njaay Sénégal suñ Sénégal la kenn ku nekk ci ñun am na lu ko ci war fam nekk na ko defar su fekkee ne dañ la dénk service booy liggéeyee ndax yow moomu ci dëkk bi nga bokk ci jaboot gi nga bokk du ña nekk ca daara ja rek ñoo yelloo baax du ña daara ja yar rek ñoo yelloo baax waaye képp koo xam ne yaa ngi nekk doomu aadama nekk nit barab biñ la jox dénk la ko waaye waaye rafetal ko ndax bu fekkee ne dangay ngay li war ci yow mooy nga xëy heure nga wàcc heure soo defee loolu danga rafetal ci barab ba nga nekk su fekkee ne jigéen juy sëy nga lañ la dénk ca bañ lay muur mooy na nga sa jëkkër nanga fonk sa bokki jëkkër waaye waaye fonkal sa jëkkër wegal sa mbokki jëkkër su ko defee seen kër du xat te sa jëkkër su fekkee ne da nga koo def ni sa waajur ndax darajay sa waajur la ko yàlla dénk ndax jigéen joo gis muy sëy bañ koy muur wan nañ ko nam mara mel ci ci kanamu jëkkëram mooy dañ koy muur du gis fam jëm su yeggee ba yegg ca kër gam jëm ñu muri ko jël jëkkëram teg ce kaw lal ba raam loo ko mu ñëw ci kër jëkkëram yéeg ci soog a ci kaw lal ba lañ koy jàngal mooy suufee ko war tarbiyu moo ko war yar boppam moo ko yar moo ko war waaye léegi jikko yi jigéen ñi léegi dañuy jël seen jëkkër yi def leen seeni nawle wala ñu def leen seeni morom jëkkër nawle la waaye du morom sàngala it góor suñ ko mayee soxna la ko war mooy mu dundal ko mu dëkkal ko mu dëkkoo ko mu odd ko lii la ko lislaam sant na ko yërëm jigéen dañ ko yërëm jigéen nag su ko góor yërëmee la ko war mooy mu respecté ndigali jëkkëram su respecté ndigali jëkkëram su boobaa ah jëkkëram dana ko yëg jëkkëram dana ko bàyyi xel waaye am na jigéen ñoo xam ne nag la neen war dañ ko def waaye ca jëkkër ya lay doon bu boobaa nag ku jëkkër jooju la war ca moom mooy kilifa yi sol seen dàll taj ko fàttali ko li nga xam ne moom lañ ko defoon moom lañ ko mayoon fàttali ko li nga xam ne moom lañ ko dénkoon bañ koy may soxna ndax soxna mag ñaa koy tànni mag ñooy dem ca jàkka ja ay ay gore kese ñooy daje ñooy waxtaan ñooy dénkante ku ne ëwlu sa morom ñu foob ñaari xale yi ñu maye leen waaye waruñ leen a seetaan dañ leen a war a uuf dañ leen war a dimbale aw ñëw na yonent sallallahu am soxna su ñëw ci moom ne ko damaa bëgg nga yaral ma sama doom ji mu ne ko kii yar ko wees na mu jur doom xale bu tooy xepp indil ko yonent salaa salaam ne ko yaral ma sama doom ji mu ne ko kii yar ko wees na mu ne ko ah xale bu juddoogut amoogut dara xamagut tus naka lañ ko naka la ko yaram naka la yaram di weesoo mu ne ko nit ki soo ko bëggee yar da koy tànnal ay waajur yu baax bëri na nag tuumaal duut ko baaraam fekk defut dara fay ak jëf la rek wolof dafay wax ne ku ñuulug sa jëkkër ku ñuulug sa jëkkër yàq sa sa doom loolu la wolof wax <laughs> waaye nag lislaam nag ñun mooy suñu repère mooy suñu wéeruwaay ndax suñu demee bay dellu suñu demee bay jël exemple dañ koy jël ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne moom la yàlla jël defaree ko àddina ndax bi mu ñëwee la àddina bi leer ndax njëkk muy ñëw fekk na ñuy gas jigéen di ko suul njëkk muy ñëw fekk na àddina di rayante waaye bi mu dikkee ba tracé l'islam tracé ñi nga xam ne mooy jikko yi ah ci la àddina leere nii moo tax Sénégal mag ñi nga xam ne ñoo yar ñoo yor Sénégal ta samp fii l'islam bi nga xam ne tey su Sénégal amee jàmm ah nañ leen ko gërëmee de ndax réew yi ñuy wër ñu ngi ñaan jàmm ci ñoom de waaye ku ne xam na li xew ci réew yi ñuy wër waaye Sénégal de ñu ngi ñaan jàmm ci moom ñu ngi ñaan jàmm ci réew kenn ku nekk la la gën a jege na ko rafetal ka la gën a jege na nga rafetoog moom bu la defee lu bon fay ko mbaax su la lebalee lu bon fay ko lu baax bu la tooñee jéggal ko su la yoreree bor su ko soxal àtt may ko ko te yàlla tax sula jëfee jëf joo xam ne daf la gaañ baal ko te yàlla tax ndax maa ngi fàttaliku ah, yal na ko yàlla yërëm maa ngi koy jaale Sénégal di ko jaale àddina bi yëpp mooy oustaz Ibrahima Mahmoud Diop mi nga xam ne moo nekkoon secrétaire Maolana Cheikh al Islam Alhaaji Ibrahima Niass yàlla dogal mu dëddu wane gannaaw nettali na bés na mu ne am na bés wëllëre Cheikh Ibrahim Niass ñëw jóge Saint-Louis bi mu ñëwee di seeti Cheikh Ibrahim bi muy ñëw ñëw ngénte moo ko indi bi mu ñëwee wax bàyyi na ko bi mu ñëwee yegg si Medina ñekk fa ñetti fan balaa muy yegg si ci Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass fekk na bàyyi yëg na xabaar bi ci moom ne moom ñëw na kaw Kaolack ba mu neyoo ca ngénte la nekk fa ñetti fan jugee ca ngénte la ñëw ci baay nuyu si bàyyi nag ko yaa ma tax a jógee seen louis te yëgul na bàyyi moom yëg nañ ak ñëwoom yëg na na ngéntee ko tax a dikk bi mu ñëwee baay ganale ko caral ko jox ko ëkkati addiya bëgg koo jox ëkkati euh, taraanga bëgg koo jox oustaz Barham la mu wax bàyyi ne mooy soxlaam oustaz Barham bëgg koo leeralal bàyyi wan ko ne ko kii li muy wax nii lu mu sos la bàyyi dafa ko joggi ci tànk bàyyi joggi ko ci tànk Oustaz baraxam noppi ba waaja demee mu ne ko jëlal yàlla jox la jox naa la ko ngir yàlla ba mu demee Oustaz Ibrahima bàyyi na ko suturaal laal jaami yàlla yi ndax jaamam yàlla dañ koy suturaal nit ki sa xam na sax ya euh, la muy wax yow xam nga ne leneen la ci namm waaye ci taraanga ak kersa ak ngor dana tax yow ci ab yar bu mat biñ lay yar mooy waral nga bàyyi mu dem ni ngay bàyyi mu dem nag mooy danga koy dimbale da koy dolli taraanga da koy bàyyi yow nga jubbanti sa bopp ndax nit am na nu muy mel sa jikko moo koy defar nit am na nu muy mel boo waxee du ko defar soo jëfee du ko defar waaye dangay delluwaat yow ci sa bopp ndax léegoo léeg mu dal kenn ku nekk ci ñun léegoo léeg mu dal la léegoo léeg nga gis koo xam ne mag lay doon wala mu nekk ndaw ngeen bokk oto wala ngeen bokk kaar wala ngeen bokk jotaay yàlla nattoo ko ci melokaan boo xam ne ci ñàkk yar ak teggin su dikkee ba yegg ci yow. sa melokaan bi ngay mel mooy tax looloon dañ moo tax jikko lu am solo la moo tax Alaaji Njaay Loo Njaay ah, seen émission bii émission la boo xam ne ah man da suma sañoon ñu koy def semaine bu nekk ñaari yoon ndax lu tax jikko moo yor réew <laughs> te ndaw ñi ñooy ndolal réew mi te ndaw ñi war nañ leen a fàttali seeni cosaan war nañ leen a fàttali seeni repère ndax ñu man koo xam. jërëjëf Cheikh Omar. Mm. maa ngi siyaare bu baax imaam Cheikh Tidiane Cissé di siyaare Fat Samb soxnaam di siyaare nag Alaaji Baaba Lamine ak Mohamed Niass mu bay Ibrahima Niass selew na da nga wax bu am solo ci. bi waa ji ñëwee ngeen di te bàyyi tax ko woon a jóg waaye xam ne ne ajoom balaa fajo mu gis bàyyi Cheikh Amadou Fadal Mbacke mu doon lépp yi bàyyi bàyyi di léppam sëñ Fallu lali rasool yi amoon bu jëkk te yàqu benn waaye da ko xool def ci ay saako ñëw ba traversé buntu ko Cheikh Amadou Fadal Mbacke nit ñi toog muy dama doon jaay rasool sëñ Fall ni woon ma ko mu ñëw wun nga na rasool yi mu sutti lépp di ay weñ waxay xay xamul lu mu doon ci àddina mu ne ko ñaata mu wax ko lim boo bi jaaduwul am kenn ku ne bëgg a xool sëñ Fallou ni ko lim lay yaay baaxul sëñ Fallou fay waa ji da ñun ko sëriñ bi li nga jënd xam nga ko mu ne jënduma lii jënduma la ka dem rasool bi mu wax te rasool laay ñor maa tax ma jënd ko ci jikko yi xam ko lay nax nga jël sa tànk jog ci xam ne loo jëf yàllaa tax mhm. la ma ñu daan jëf mhm. Cheikh Omar mhm. nga wax waa ju am solo doomi soxna mun tëdde mukk te soxna su baax juru ko doomi soxna mun te dégg mukk doomi soxna te jàngul amul xam-xam mun te nekk li ràq nigi réew mi tey dinaa la ci wax lu bari doomi soxna dañ koo bootul ak lam man ay jëbëri ci dugg ci tas réew mi ak di xajjale nit ñi maa man ni yaa bari doomi soxla bu la ma saa ñaanal yàlla nangu ndax di wéetal yàlla am xolub yërmande am kersa jikkoom rafet muy wax lu baax ku mu gis la ku mu tane dimbali la ñooñu la yàlla daan dëkkal ma maaman yi ràbb ci dañu tàggale diggante doom ak ndey diggante jabar ak jëkkër diggante rak ak mag dañu tàggale ay xarit dañu tasub société moo bari léegi mm-hmm. ma daal laa yit Cheikh Omar mm-hmm. dafa taana ku baax mm-hmm. Pape si colonel Douagne ma nga tey Foundiougne waaye Bamako la dëkk bi yaayam dund ko ni yaa ngi Bamako de am nga garaat waaye fii nga fekk baax di Foundiougne sa gaari maama la wër waaye bu ma sayoon di fi am adresse ndax lettre day am loolu ñuy wax tampon yaa ci génn àddina pap te di ba guddi mu feeñuwaat waxaat ko ko pap jël lu amoon lépp ba ma ko ñëw fu ñu di laajte bañ ko ne fii ma doon seetu maam mu liggéey fa kër ni sama waxi bàyyi ndey lay fàttaliku kon nit ñi toujours li doomi soxna war di mbubboo li doomi soxna war di jàngale nit ñi ndax saa waxee ñuy dégg ko te réew mi tas na maas def na nangam ñu ne attan na ko de te fekkoo ba mu koy jëf it nag. fi mm, mm. bari lool dooral. Mm. dooral rek fi am. Cheikh Omar nangam. ngeen amul xam-xam. déedéet. nit ku baax nag. maandoo fi maa maandoo nag fu mu jógee rek wax loo xamul ne fa. wax loo xamul fu mu nekkul nag jikko ci rafet du fa nekk. may laa Cheikh Omar doomi soxna ban mbubb la daan sol. alhamdulilah Alaaji Njaay loo Njaay doomi soxna. mbubbom diine la daan sol doomi soxna mbubboom sunna la daan sol ndax Mawlana Cheikh Islam Alhaaji Ibrahima Niass dafa wax ne sama sëriñ ci zahir mooy kitaabu wa sunna alquran ji ak sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo nekk sama sëriñu zahir mu ne sama sëriñ ci baatin muy mawlaana cheikh al islam mawlaana cheikhna ahmada tidiane sérif radiallahu anhu mooy sëriñ si mooy sama sëriñu baatin te mu nekk mu ne alquran ak sunna kenn gënu ma koo dégg euh, alaaji njaay loo njaay wax nga dëgg jikko yi yàqu nañ maamoon yi bari nañ waaye man damay wax na sëriñ soo koy doon yàllaa koy def ci yow ku ne xam na ne mag ñi fi nekkoon seen baay ñoom ñoo ëpp tur seen baay de ñoo gën a feeñ seen baay te seen baay yee leen jur sa baay do sëriñ nag dana la dimbale pour nekk sëriñ yomb wala waaye yaay fàgg yaay fàkku yaay fàggulu tax nga war a mën a doon sëriñ doomi soxna boo gisee ñu ko daan wax doomi soxna ndey ja daf daan baax ndey daf daan nangul boroom këram daf daan tarbiyu boroom këram ah waaye léegi jamono dem na ba nga xam ne jigéen sëyatut te la waroon ci sëy su dee téeméer la juróom ñetti fukk yi yëpp dem na ñaar fukk yee fi des te ñenn la ko yàlla wërsëgale mooy ñi nga xam ne ñooy du jur ñi ñuy déglu ba tey maa mën nag ah yàgg nag loolu alaaji njaay loo njaay àddina yàgg naa fu lu baax nekk lu bon nekk ci wetam bàyyi bàyyi nga ne dafa wax ne yonent bu yàlla bind rek bindal na ko aw firawna mu ne waaye waliyu yàlla bu yàlla bind tamit bindal na ko firawna kon ñi nga xam ne ñooy daan daan ñaan yàlla mu nangu ñoo daan wax mu am ñoo daan nga xam ne boo jaaxle an dem seen kër tawat fa seen njàqare wala sa nga tawat fa sa njàqare njàqare la fajoo fa ñooñu nag ñoo doon doomi soxna ya waaye jur nañ nag ay doom jur nañ seeni doomi jur nañ yi doom waaye nag jamono bi tey góor la la laaj ndax bu fekkee ne ah àddina ubbeeku na ba ñu daawul nekk sëriñ nekk sëriñ bëgg wax ne dañuy ñaan wala dañuy faj ay aajo wala dañuy ubbi ay ay mbir ah ñooña nag kenn mënul leen fay jële lu tax kenn mënul leen fay jëlee ndax àddina moo ni fa moo fa toll waaye doom aadama yi nag ñoom ñoo war a xool seeni bët ñoo war a xool ñi nga xam ne nag ñooñu yàlla dénk na leen mbir yàlla may na leen tawfiix te it yàlla may na leen jikko yu rafet bu ñuy fobu du dem ñu fob dem ca ñoom ndax kenn mënta wax ne <coughs> ah li ñuy aaye ci dëkk bi dootu fi am ndax lu bari ñu ngi koy aaye boo gisee ñu samp police ñu samp euh, armée mooy lu tax <coughs> pour tere pour wattu li ñuy tere li ñuy tere ci réew mi nag bari na waaye nit ñi nga xam ne nag ñoo war a jóg jëm ci ñooñu ñooñu ñoo war a ñoo war a ànd ak dal ñoo war a ànd ak teey Alaaji Njaay Loo Njaay damay fàttaliku ba may gone di tout tànk am juróom-ñaari at sama waajuru góor na daf may dugal école tubaab biñ ma yóbboo ma dem def fa ay at def fa ay weer damaa ñëw ci sama wajur wu góor ma ne ko te li may wax nii samay mag ñu ngi fi samay wajur ñu ngi fi sama wajur wu góor làqu na ne ko yàlla yërëm samay wajur wu sama jigéen a ngi fi samay mag yu ma bokkal ndey ak fi te am naa sama mag joo xam ne sax bu ma daan dem di jàngi moo ma daan yóbbu yàlla dafa dogal ma xëy benn bés ma wax sama papa ma ne ko man dootuma jàngi mu ne ma lu tax dootoo jàngi ma ne ko damaa gis. kenn du dem école jàng ba kenn ñëw ci mise bi ne ko bindal ma saafara ma naan kenn du ñëw ci musée bi ne ko damaa feebar moccal ma sama bopp ne ko booba yàllaa ngi waxee ci sama làmmiñ li nga xam ne moo xew tey ci man sëriñ dañ ko daan dañ ko daan judduwaale waaye duut ne da xëy rek ah yàlla may lay pexe wala may la xel mu neex nga ne da nga nga ne sëriñ nga d'accord da nekk sëriñ ci wax waaye doo mën a nekk sëriñ ci jëf de ndax koo jëfal su demee du delsi wala bu demee du yebal keneen mu ñëw ndax sëriñ ak léegi résultat da cee manqué lu ko waral mooy lekk lu lew dafa manqué ci réew mi wax wax dëgg dafa manqué kon nag jullit ñi nañu defaruwaat sëriñ si nañ yokk ñaan yi doomi soxna yi nañ gën a fegu nit nag nit la doomu aadama léegoo léeg mu def fi doomu aadama mënta ñàkk waaye boo ca paree nag da xam ne am na lu la xaar am na looy xaar am na it ñu lay xaar am na ñu lay déglu kon Alaaji Njaay looy Njaay <laughs> eh, ñaan yàlla ah, nag am na te ku weddi ñaan yàlla da ngaa demagut ci ku yàlla may tawféex muy ñaan yàlla muy nangu te mu ngi des nag Alaaji Njaay Lo Njaay ba tey maa ngi lay wax ne ba tey nit ñaa ngi ñaan yàlla mu ngi nangu te loolu lu wér la ah man de du ma wax ne man a waaye daal xam naa ne ñaan yàlla daal am na ba tey. jërëjëf. te wolof dafay wax ne ku ñeme dañ laa déy. jërëjëf Cheikh Omar Cheikh Mourtala Mbacké. Mm-hmm. caatum Cheikh Amadou Bamba yal na yàlla yokk leeram. boobu sax ñëw di ko ñaanlu dala naa. loo bëgg ngay dox di wax mu ni déedéet yamal ci ñaari baat mm-hmm. loo la musal ak loo mus mm-hmm. ñee ku mucc lu ñu seetle sa kër génn ci mm-hmm. nga wax baat bu ma gën a intéressé ci yàkkamte te damay faral di wax ni politique ak sëyam ak ndaw ku yàkkamti bokkoo ci fi nga yàq sëb say ëllëg ndax pressé ci la doom ci barke waroon a juddu waaye xaaroo ko fa fi nga ne tey laay démissionné ci politique. nga mhm. waroon am doom ak tànk. Mhm. waaye fi ndaw yàkkamtee lay fakkastalu ba du yegg. Mhm. moo yàgg moo bari léegi. te Cheikh Omar. da waxtaan ak baax. muy kilifa ku baax. di sëñ Mbaye Mansour. ci koor gi rek yàggul. damaa ko fekk ci néeg soxna Aida. si mu ma laaj Abdoul Aziz borom waañ wi. muy dog ni ma acca far ci nga yem. nu pare ko man ko sëñ bi ci kaw laa bëggoon a yéeg mu ni déedéet maa wàcce tey di dogoon yeeg soxna si njaay man ko bàllay sa mu ni kóorte bu déggal la delloo ko cër moo xam ngay liggéey yow moo xam muy sa doom moo xam muy sa soxna wax na dëgg jëkkër du nawle waaye boo góorgóorloo ba juró comme nawle te lam bëgg nga bëgg ko am nga nawle su bëccëgee su bëccëgee nag doonal nawleem su guddee nga doon mu doon sab sang Cheikh Omar ma gis fii nga nekk tey ci Fadia bari na ñaari koy gis day wax ni su ma mel sañoon mel ni Cheikh Omar Diop ma ko lu tax mu ni tànkam guddul waxam bëriwul jëfam rëy man ko nu muy jëfe mu ni wéetal sama te ku mu tani dimbali la man ko loolu mooy doomi soxna Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñetti xalifa Cheikh du bàmba bàyyi Serigne Sidi mi doon màggal barki démb rek daf ni soo xamee fi ngay mujj boo ko jëkkee kenn du la yedd te doomi soxna war naa xam fi muy mujj fan lay mujj siraatal mustaqim jàng am diine lool te ñeme ak dëgg jikkoom rafet te mu am yërmande loolu la ma ñu rayoon ku ñu mas sëñ Fallou mii sëñ Baye Niass mas na koo gunge gane ji dañu gungente ñoom ñaar bu Cheikh Amadou Fadal Mbacke gunge Baye ba mu sori Baye gungewaat ko ba mu bëgg a di bëgg jot ci ak yëg ci ak fonk ci bëggante ci soppante loolu bëreetul koo gis yaa ngi ko xoolal loo ko war a waxal ci lu bon yaa ngi koy yàqal yaa ngi yàqub deram moo bari loolu moo xew dem na ba ci néegi yi mhm. dem na ba ci politique bi dem na ba ci société yi dem na ba fi ñuy liggéeye dem na ba ci doomi soxna yi ndax danga tooleeg ci nit tudd doomi soxna joo xam ne ji yàllaa jëf ci moom lu kenn jëful ndax yàlla fu ko neex dugal loxoom mu teg ci kàddu goo xam ne ji wóor na ni la ne ci moom nekkul ci moom waaye kon ma rafetal ko kon Cheikh Omar mbubb mi waaye di sol di ko waajee di dem aw xew boo ko solee sam naawle doot naay doo juum Laaji Njaay Lo wax nga dëgg doomi soxna doomi soxna tànneef lay doon doomi soxna góor lay nekk doomi soxna yaakaar lay nekk waaye nag jamono bii jamono la boo xam ne jamono la boo xam ne jamono bu yomb la ci bu boo bëggee baax waaye jamono la boo xam ne jamono bu yomb la ci boo bëggee bon ndax lépp luñ loo xam ne luy baaxal doomu aadama la fexe nañ ba mu yomb fexe nañ ba yegg foo xam ne mosu yegg waaye lépp loo xam ne mu ngi yàq doomu aadama tamit fexe nañ ba mu yomb fexe nañ it ba mu yegg foo xam ne daaw fa yegg waaye nag nit ki mooy ki nga xam ne mooy ki ñu war defar waaye ni ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent yàlla Muhammad beneen yoon ah di wax senegal nañ defaruwaat ndax xam ne am na sas wu rëy wuñ ñu sas ndax jamono bu nekk nag ñooñ jamono ba lañuy ñuy jamono buñ waxee ne Baye Niass a ah, rafetaloon na jamonoom rafetaloon na yaram rafetaloon na ñam yaraloon te it boole woon na njabootam ak njabooti jàmbur yemale leen bëri na ci réew mi tey koo xam ne doomi soxna la Baye Niass moo la jëlee ci réew mi yóbbu la bitim réew nga ànd ak njabootam dem jàngi te doomi soxna nga loolu lu ko waral mooy bennoo gi nga xam ne moo amoon démb réew mi rek moo leen itteloon doomi réew mi moo leen itteloon waaye léegi nag kenn ku nekk nag ah sa bopp sa bopp nga tal waaye dañoo mel ni dañoo teewal bés penc te ñëwagut bés ba nga xam ne kenn ku ci nekk da nga si nafsi si sama bopp sama bopp dafa mel ni ci lañ toll waaye fekk na yegseegut mag ñi nañ delloowaat yëf yi ndax nag su ñuy wax mag ñi man de su may wax mag ñi mooy ñi nga xam ne ñoo ñu féetee mag tey ah ku mel ni Mawlaaya eh, bëkkale karamaan aram loo ku nga jaam faawaat du faar mu joom alam loo ku ma jaam